salaam à tout monde jàmm ci képp ku jot ci vidéo bi di ñaan tamit njégal ngir émission ngonal bi ma def ba tudd ci villageois wala àll waxewu ma ko benn intention bu ñaaw wax dëgg fa yàlla ndax fii ko fi sa yaay jógewul ci village sa papa jóge na fa wala yow sa bopp nga jóge fa waxuma ko it pour xas ndax tollu ma nen ba war a mën a xas kenn wax dëgg fa yàlla juste dañ doon sensibiliser fi feebaru coronavirus bi toll wax dëgg fa yàlla am na ñoo xamante ne xamuñu sax feebar bi dugg na fi wala bu ñu ko xamee dix pour cent lañ ci nan la ñuy def ba sensibiliser wax dëgg fa yàlla am na ñoo xamante ne xamuñu sax feebar bi dugg na fi wala bu ñu ko xamee dix pour cent ci nan la ñuy def ba sensibiliser leen ba ñu xam feebar bi fu mu tollu cent cent ndax nag bi ma juddoo ba tey maa ngi doog a gis vingt ku ne tëj sa bunt ngir njàkkare fay na nag njàkkare boobu laa doon waxee wala tiitaange boobu ci feebar bi ba tax ma daal di juum ma ñaan yàlla mu jégal ma ndax nag fii Sénégal la benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar te tuuti naa loolu pour dépasser benn nit waxatuma la ak mbooloo mu toll nii salaam maa ngi jégalu bu baax.